salaamaaleykum wa rahmatulah mbokk téléspectateurs yi di leen ziare ñu ngi nekk nag ci rawdu Serigne Babacar Sy ibnu Cheikh Seydi Hadji Malick ñii nag ñooy comité COSCAS ñi nga xam ne ñoo yor lépp lu làmboo si wàllu gàmmu geeg yu ni mel tey nag sëñ njiit moo teew nii moom lañ bëggoon a dékk micro bi rek mu wax ñu tuuti rek si li nga xam ne mooy gàmmu geek ni muy doxee ak organisation bi may commencé mooy. di wax ne man gannaaw yàlla man lañu def may président rawdu Serigne Babacar Sy rabiyallahu taala anhu kii taxaw sama ndeyjoor ñu di ko wax ma an man Ndiaye laa tudd kii taxaw sama ndeyjoor ñu di ko wax ma Anta Sarr ma Anta Sarr mooy sama premier vice président moo topp ci man kii sama càmmoñ di Maguette gay moo ci topp mooy deuxième vice président ñaar ñii ma àndal nag. ñoom maak ñoom gannaaw yàlla ñun ñooy saytu rawdu bi ak lépp loo xam ne lii njariñ buy génne ci rawdu bi li nga ma laaj nag ma la bëggee toog fii sax di la waxal organisation ko COSCAS xam naa dama koy tënk rek ci ay baat ndaxte COSCAS boo ko déggee ñu ne comité d'organisation au service de Khalifa Ababacar Sy mbooloo mi nga xam ne de and, di liggéey ngir Serigne Babacar Sy radiyallahu taala an kooku nak buñ la waxlee organisation bi warna na tolloog lu mat juróomi commission juróomi commission ndax amna commission d'organisation amna commission santé amna commission technique amna commission décentralisation mais commission bi nga xamné commission yëpp am importance yëpp am importance ndax yëpp dañuy liggéey ci COSCAS façon liggéey bu ne COSCAS nag ñetti événement la am bi ci jëkk mooy ziyaara général bi ci topp mooy gàmmu Tiwaawan bi ci topp mooy gàmmu Ndar bu Serigne Babacar commission organisation boobu nag nga dégg dañ ko jël def ko ay pàcc-pàcc ba mu nekk ñaar fukki sous commission ak ñett rawdu bii ñu taxaw di commission war a nekk fi ne tey ci lu war a mat cent soixante quinze personnes téeméeri nit ak juróom ñaar fukk ak juróom sous commission la li ngay dégg dégg rawdu sous commission la ci vingt trois sous commission yi vingt trois commission yooyu nag bu ci nekk nag am nga importance di liggéey sa liggéey commission yëpp bu ñu dajee commission bu ne fa nga ne Il ngay tarbiya di ngir a dox commission bi commission escorte am commission barrière commission euh, euh, euh, commission ravitaillement eau commission hébergement am commission abattoir am commission ordre ordre tout ce qui est poubelle ci commission commission bu fi dégg rek amna commission gindi ku ñu yobula fa donc commission yi dañu bari 23 lañu commission bu ne macha allah sa te commission bu ne da nga am président am vice président commission bu ne sous commission bu ne am nga président am vice président donc amul kenn qui xam ci commission ba may nañu la ngay wax dara ci média te président ba nekk fa vice président ba nekk fa ndax su ëllëgee loo fa waxta lu noonu président ba la ñuy jël moom la ñuy oo moom la président national di oo neen ku leen wax loo lii macha allah nag commission sous commission yooyu nag ñëpp a àndandoo nag jàppoo di liggéey bi ñu daan liggéey ñu ngi daan liggéey ci gannaaw suñu pres suñu euh, responsable moral rahmatullahi alayhi yal na yàlla seddal ay yaxam muy sëriñ Abdou Aziz Sy Al Amin daan def lépp te ne koskaas a ko def demam nag manqué nañu yëg nañu ko ci ci zahir ak baatin yëg nañu ko ci zahir ak baatin wax dëgg yàlla yal na yàlla fayal ñu ko ay rakam fi nekk nag wuutu ko di di Pape Malick Sy sëñ Mbaye Sy ak seeni i rakk yal na yàlla ta yàggal seen taxawaay yal na yàlla dëgëral seen taxawaay yal nañu sut seeni mag ay fan ak seen i wayjur amiin amiin yal fi toog téeméeri at yoo xam ne dañ koy tal yal nañ ko yàlla defal te fu ñu wëlbate ko gis ñu ñu yàgg ñoo jàppale yàgg ñoo jiite sëñ Abdou Aziz Al Amine nekk na fi ba jóg fi dara yëngatuwul topp ci gannaaw magam sëñ mbay sëñ euh, euh, Mansour si borom daara ji topp ci gannaaw magam sëñ Cheikh Tidiane si Al Maktoum kon yàlla yàlla fayal ñu leen. amiin yaa rabbal si naa am salaam. beneen point bi ñu bëggoon xam mooy dañ dégg ci dañu góor gi Abdou Aziz Al Amine mu ne COSCAS du du du du daayira comité de pilotage la waaw ñu bëggoon xam rek waaw pour ñi nga xam ne dañu yaakaar ne daayira la ban ban leeral lañ ci mën a am. koskaas du daayira koskaas ëpp na daayira daayira yi ci fédération yi la ñu ne dëkk boo dem gox boo dem dafa am fédération des daayira tijaan am na fédération daayira tijaan de Thiès am na fédération des daayira tijaan de Tivaouane am na fédération des daayira tijaan de Louga de Kaolack ainsi de suite ainsi de mais koskaas ci biir fédération yooyu ci la jëlee membre da ngay koskas, koskaas da ngay bokk fédération da ngay bokk koskas? mën a bokk koskaas da ngay bokk daayira ñëw bokk koskaas da nga gis koo xam ki day bokk daayira kon da nga gis koo xam ne bokkul daayira te bokk na koskas kon koskas du daayira du dëgg waaye bu nekk bu membre daayira koskas, ñooy koskaas moo ñu gënal wax dëgg yàlla koskaas événement moo taxoon mu juddu dégg nañ ci mag ñu naan ñu naan am na ñoo xam ne ñu naan Koskas 68 la judd waaye am na mag ñu ne Koskas judduwul 68 69 la judd waaye événement bi ko waral 68 la mooy grève 68 bi amoon Dakar sëñ Cheikh Diagne si Al Maktoum président Senghor oo ko ci gàttal ne ko duma mën a taxawee gàmmu gi ren ndaxte Ndakaaroo ngi toj te service d'ordre bi war a dem Tiwaawoon ñoom lay lay mobiliser Ndakaar sëñ Cheikh ñibbisi ci nañu ko mag ñi nattale daal di leen daal di oo ne ko taxawal utal ay ngeen taxaw ndax ay góor ngeen ut juróom-ñaar ak benn mooy liiflam miim ñu ut juróom ak benn ñu taxawu gàmmu Tiwaawan nga gàmmu ga baax lool ñu pare suñ mën suuf si ne lii de bu mu fi jogate suñ Abdou Aziz euh, euh, euh, Cheikh ne lii bu mu fi jogate suñ Abdou mu El Hadj Abdou Aziz fi jogate 69 qui lañ formé ci ni ko mag ñi waxe fait fait don ko waxe événement est indi ñaar en 1969 actuellement fini toll mais dépassé 5000 personnes 5000 personnes dans quand tu d'ailleurs, d'ailleurs nous mënu am 5000 personnes ñun nag waa Rawdu dañu ñëw nous ñu dimbali. pèlerin yi teete leen yërëm leen jàppale leen ba ñu ziyaare ndax lool rek leen fi indi xër ci seen daay seen seen seen seen kilifa mu leen fi indi pour ñu ziyaare kenn sant ñu ñu bëmax leen kenn sant ñu dóor kenn sant ñu ñu wéq kenn sant ñu saaga kenn sant ñu wax lu naxan naxanteeg ñoom fu ñëpp daje nag boo ñëwee Tiwaawoon li tax fii am sensibilité soo demee Makka aj ba pare te demoo Madinatul Munawwar ziyaara ji yonent bi da ngay mel ne yow da ngay def ne ajuwuloo Tiwaawan itam noonu la mel soo fi ñëwoon gàmm ba ñibbi te ñëwoo raw di Sëñ Babacar Si da ngay def ne gàmmoo loolu yàlla moo ko def yàlla moo ko def kon li ñuy jox message bi ñuy jox population bi rek mooy na ñëpp ànd ak yar na ñëpp ànd ak teey na ñëpp ànd ak dal nañ yërëmante buñ buuxante ku gis sa moroom dimbali ko ku gis sa morom mu sonn boo ko mënee ma dimbali nga dimbali ko ku gis sa morom mu sonn boo ko mënee jàppale nga jàppale ko yaa xam koskaas nga ne yaa xam nekkoo koskaas na lépp rafet sëriñ si kontaan Babacar si kontaan Alaaji Malik kontaan yàlla kontaan yonent bi kontaan yàlla kontaan loolu